Alors, Maître Adam Mouné, les réformes sérieuses n'ont jamais été faites euh, sur la justice sénégalaise. Je dis la justice bi amaguñu li nga xam nekk ay sérieux Maître Mame Adama Gueye mu daal di jàpp ne li xam euh, Sénégal euh, suñuy xool li nga xam des moo question militant moyen yëngu si justice. alors mu daal cette question bi nga xam ne itam soulevé na depuis il y a de cela 25 ans. Euh, si li nga xam nekk émission Jacques Boran, mu daal jàpp ne nag li nga modi nekk moo di ministre fi daal passé ñëpp ak képp ki nga xamni ne passé na fi amna na sék ak li nga xam nekk moo ak wàllu yoonal te suñu xol réforme sérieuse defuñu ko si allant dans sens alors moom mu daal ni il est nécessaire et même indispensable de marquer le pas et réfléchir sur cette question de la justice sénégalaise ce que je reproche aux acteurs politiques c'est que chaque fois euh, qu'on parle de justice, on en parle à chaud. On ne traite pas les choses à chaud parce que c'est très profond. Cela nécessite un traitement euh, de fond qui requiert l'organisation d'assises de la justice qui implique toutes les parties prenantes de ce pays exactement alors mon mu daal n'a ne nag ni mu que modi justice bi dafa xaw li nga que modi di le militantisme euh, militantisme exactement il y en a itam ñooy militer quel que soit parti bi nga xam ne soom alors donc euh, tout est à revoir s'agissant de la justice sénégalaise la robe noire l'a fait savoir justement si émission Boulin a objection reprendre exactement alors dans le sens que je suis très engagé sur cette question parce que je suis militant de la justice cette question je l'ai soulevée il y a de cela vingt ans ah, moi je suis d'accord avec lui je suis entièrement d'accord avec lui parce que il faut qu'on aille vers des réformes de nos textes juridiques parce que une loi il y a des lois anciennes quand même ay loi yo xamante depuis jamono Colombie. tay loi yo xamante sa français ñoñu ko jox français yi ces lois là ne sont pas ne sont pas en question. Mm. ces lois là ont été remises en cause ñom def nañu ce qu'on appelle des révisions juridiques de leur texte. Mm. ba sax loi yu bari dañ ko dañ ko dañ ko faxas. donc il faut ñu méngale ko ak doxinu jamono. c'est pas à jour mais ñun il faut que ñu méngale suñu loi ak jamono jamono dafa dox.

jëlee fi ay loi yoo xamante ne amaluñu njëriñ. andi fi ay loi yo xamantene pour tout le monde pour tout le monde moo man je suis d'accord avec lui il faut que suñu justice ñu réformer ko il faut que ñu réformer suñu loi yi suñu texte juridique yi. il faut que ñu réformer leen. ok c'est clair il faut que ñu réformer ko. alors c'est clair parce que bu féké ay loi yu bëri xolal ay ay ay ay loi yo xam pendant mm. l'indépendance. ñoom ñoo tenir en haleine ce pays. Mm corruption à la jeunesse. Hmm. en France tu parles de corruption à la jeunesse on te comprend même pas. Hmm. dañ il faut Afrique Hana Afrique <laughs> Bon demain France nga le Contimax max lay a yow yow foo Afrique nga la ko faux suñu colon africain a mais mon roy ngay roy lu bon nit Boy roy da ngay bëgg lu baax roy lu baax les gens se développent. <laughs> le juge eh. a dit démissionné a démissionné tu sais pourquoi parce que ces textes là ne nous amènent en rien ne nous amènent nulle part parce que textes lan andi élection nga jël parce que euh, ce qu'on appelle les réformes war nañu def hmm takali suñu euh, euh, euh, code de procédure pénale mm. ak suñu code électoral mm. il faut que ñu takali leen bu buñu bu moy manam mooy mën nga ñu bañ mën nañu la topé ci un délit donc bo xamante procédure pénale bu lalé ak le code électoral alors c'est clair loolu yëpp foog ñu andi ay chopité andi mm. changement radical rupture code total de de de de l'instance judiciaire que ñu andi rupture alors c'est la aussi au niveau de la magistrature parce que yamuñu waruñu yem qui a réformé ay ay réformer ay loi Si nous Fallou suñu magistrat yi nu muy il faut que ñu réformer ko. Mm. sincèrement. Mm. nee euh, le pouvoir judiciaire qui est un pouvoir à part doit avoir son autonomie am autonomie moi mooy nous ñu que le budget mu fonctionner comme l'Assemblée nationale ba mu am ministre. ba mu am ministre L'Assemblée nationale dafa un ministre tey nekkul di dox du foofu la ñuy loi yi. pas mm. là dox mais suñu justice warna na doxee mais non président su fekkee judiciaire bi du amul mais mais mais mais les gens fuient le débat. les politiciens ils fuient ce débat là tu sais pourquoi. parce que ma ne euh, su perdulee euh, judiciaire bi du amati doole. c'est-à-dire kattanam day am non non président dafa am fu ñu ko war il faut pas nga jël tous les les pouvoirs de l'État jox ko nit da fay dof nit boko joxé tous les pouvoirs fay dof fay yakar ni il est au paradis il peut se permettre de tout faire signé diou ñu tëj ko diou ñu relaxé ko ma nous ma mais président le pouvoir. Hein? non non non mais président mais pouvoir lay non non non non non c'est que. wax le président de la république amul impact au niveau de l'assemblée nationale dafa dafa am ministre. dafa am ministre de l'assemblée nationale parfois du moom am chaque fois majorité duy jallale loi am bàyyi leen li ngeen di wax bala ngay wax dara foog nga chambar ko xam lan mo nek ci bir ngeen ne way président bu perdee doole justice président dafa mom justice président dafa mom justice Sénégal la justice c'est pour le peuple mais mo jiite conseil pour le peuple et par le peuple ah, la justice sénégalaise c'est le peuple bañ nañ sa bañ ne la la justice est rendue au nom du peuple pas au nom du président de la république donc loolu moo tax le président de la république a warul am au niveau de la justice am ministre de la justice justice dafa fonctionner comme assemblée nationale comme sénat lu muy sénat ça dafa des mais mais ministre de la euh, justice ministre de l'intérieur aussi ministre de la justice ministre de l'intérieur ministre des affaires étrangères ministre dépend ci de l'exécutif ah, pour dépendre de l'exécutif c'est le président de la qui mo le nommer da mais mën na nommer ñu ñu dépendre ci intégralement ok nit mën naa nommé diw. ba pare mu mu mu indépendant. non loolu sa gis-gis la Afrique. la. Afrique laa la wax. man mën naa la nommé ci dara ba pare yow nga ne te ma am ma am sañ-sañ jëlee la fa ah, en une seule seconde. yow da nga xam li ngay wax. ci dans les pays où la les démocraties sont soutenues là ça peut se faire mën nga nommer ndiw comme aux États-Unis hmm. président amul ndogal ci justice. amul hmm. ndogal ci magistrat. kaddu magistrat moo gën élevé que kaddu président aux mm-hmm. États-Unis parce que là-bas ñoom dañoo xam loi dañoo jox gëdd loi dañoo jox gëdd seen constitution parce que cette constitution yi fooyewuñu ko Nous, ñun fii Sénégal constitution bi léeg ñu changé ko pour pour des commandes politiques pour ay des raisons politiques ñu changé constitution ci ay caaxaan yo ci mim réew ngay ne yo di nga nommé ministre ba paré ministre bobu indépendant dafa am président dina nommé fii ministre ba pare ministre boobu du dépendre. tout moom conviction non non ma ne. yow da ngay mën nga wax lu la ne. mais <laughs> loolu li may wax ni Sénégalais yi la engagé. benn na ministre indépendantul fii au Sénégal autonomewul fii au Sénégal ministres yi yëpp bañ nañu sax sax ba dañuy campagne. ministres yi dañuy campagne pour Amadou Ba yow nga may naan yow yow yow ban ministre moo autonome fii. Yo, Sidiki Kaba yo bala kii ministre taxaw fi ministre de l'intérieur taxaw fi Aly Ngouille Ndiaye man je ferai tout pour mon candidat Macky Sall euh, gagner élection yi en état même bo xamantene mom moy organiser élection yi. Euh, yow loolu ngay wax. tu moy ben casquette am. loolu ngay wax. Euh, ban ministre ngay nommé fi Sénégal ba paré mu indépendant. dafa mën c'est clair c'est clair Alpha moo dama ne suñu justice Sénégal warul am ministre. dafa war am pouvoir à part comme l'Assemblée nationale nu muy hmm. doxee. ñu am sen propre magistrature ñu am sen propre élection. Si à ce que ñu confusionné les élections yi législative ak judiciaire bu ñuy voté ñu voté yàlla magistrat yi kan moo bëgg mais loolu la. comme Sénégal da bu ñuy voter magistrat pour mais mais bien sûr pour nous am seen autonomie am indépendance am seen propre budget. mais dans ce cas la justice sera souveraine imagine et sera rendue au nom du peuple. mais Ava imagine toi euh, le conseil supérieur de la magistrature opposant dit ko. mais ce sera bien... tu n'as pas compris ce que j'ai dit tu n'as pas compris. Hmm tu n'as pas compris ce que j'ai dit. waxuma la ay opposants ñooy siéger au niveau de la magistrature waxuma loolu dama né. Yo mëno concourir non non non non non non Arfan non il y a des hommes de droit yo xam ñi ci opposition bi dama né. là on a disconvient pas. vient pas y a des il y a des il y a des y a y a des hommes de droit yo xam ñi ci pouvoir bi aussi là aussi on a si on a disconvient vient pas mais imagine toi kenn ku fa opposition bi quoi? ko Ya nga yow dama lay wat ci mettre la à l'épreuve li ngay wax ni sax ça ne c'est pourquoi à l'Assemblée nationale, il n'y a que des députés de l'opposition. Ou bien il n'y a, a que des députés du pouvoir. Mais, mais d'abord, il y a y comprendre. le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature ne fonctionne pas comme ça, la même du président de la République. Ça se voit ailleurs dans d'autres pays. Alors, c'est quand même. Merci beaucoup. Alors. Mais tu peux être aujourd'hui concourir euh, à. toutefois. élection Pour le débat, parce tu fouilles le débat. Tu fouilles le débat. que am élection pour les Yo, yo, mi qui est journaliste, tu peux concourir à siéger là-bas. <laughs> Non, parce que tu n'es pas Django, qui a droit à moi, il ça? mais faut, on va donner aussi l'occasion à beaucoup de jeunes à beaucoup de jeunes nous, tamit chance comme les députés, nous tenté chance nationale les députés, ne s'expriment pas Nous sa sommes là dañ lay ne voté rek ñu voté si ñoom ngañ Touré c'est le conseil supérieur de la magistrature <laughs> non c'est bu garaaw la alors avant euh, euh, exactement euh, si mbiru ki nga que ne moo Vous, Karim Wade yow nga jàpp ni Réunion.